waaw mais mooy li président wax rek Sénégal dëkku dëkku démocratie la suñu maam yi ba léegi ñu ngi voté donc miin nañ miis nañ euh, euh, élection gis ngeen ni saa ñu waxee nit ñi dañuy yëkkati dënn yi waaye élection ci jàmm ak salaam lay dem parfois moom ay écart loolu nag dafa jar a moytu parce que comme ni ma ko waxee monsieur ma mujjantal man Dakar la Dakar waa la dama nekk candidat fii Dakar 31 juillet dañuy voté ji waaye bu ma fi defee njombe ah lundi ba ca topp danaa jàkkaarloog Dakar naa ci am kersa kon damay woo ñëpp ci jàmm ñu dem ci askan bi wax ak askan bi def suñu proposition wax leen lan la ñu namm ci wàllu parlement may bàyyi bàyyiloo nit ñi xel itam élection législative lañ jëm du élection présidentielle maanaam euh, ki ñuy ñi ñuy tab du ñuy yor gouvernement donc euh, nañu ramener ci mission parlement bi parce que da nga dégg ay proposition ay programme yoo xam ne day mel ne ay programme de gouvernement la te nag fii dëkk bi ku ci ne pàcc bu ne yaa ak li nga yor lu dëgg donc damay bàyyi loo xel loolu askan bi te ñuy déglu aussi véracité maanaam euh, nit ñi li ñu wax ndax yenu na maanaam am déet ca la ñuy lañ leen di proposer ñaanal Sénégal jàmm ñaanal àdduna bi jàmm Euh, di déwénati bépp sénégalais bépp Dakarois que vraiment fi ñu jëm yàlla defal ñu ci ndam defal ñu jàmm euh, Sénégal bi continuer di naat euh, ñuy nekk ay doomi ndey parce que élection benn bis la bis boobu bu weesoo rek ñun ñooy do continuer dooni sénégalais ensemble te souvent dënn yi dañu jog jógaay boo xam ne da ngay da ngay jaaxle parce que yàlla tere tereti ko tey bu ñu songoon Sénégal ñun ñëppay bokk rang jàkkaarloog loolu kon ñu ñëpp bokk ndey bokk bàyyi ñoo bokk Sénégal ñu ay sénégalais donc élection warul fexe ba suñu diggante ñaaw jërëjëf jërëjëf